ay euh, lépp mat na ah. yow grand bu mel ni lépp li nga soxla woon yëpp daal c'est. grand bu mel ni yow yombul. affaire baa ngi nii non tu es mon frère nag. grand bu mel ni yow yombul. xam nga rek. grand. mbaa sa xol sedd na rek. non sama xol sedd na guy guy. non yow ñoo naa ne en de 24 heures da nga koy lijjanti. non yow ñoo far bu wax dara. doo ah. metti. grand kontaan naa. jaajëf mon frère. ok merci ok cool

nee na ISO bi ñu koy préparé pour mu dugg bloc Souleymane fay na lépp lépp lépp. Souleymane kan mooy Souleymane. mooy tubaab bu jojo boobu moom doon wax moom moo tub tudd Souleymane parce que dafa bëgg a takk jojo. ah d' accord waxoon naa er la yàlla dina defar er lépp. Eh, er alhamdulilah. naka la afo lépp jàmm jaajëf waay merci beaucoup kër gi jaajëf nice mais heureusement Astan xam nga ne Boubacar xaalis bi ma joxoon dafa bëri te naroon naa amaat kersa di ko woowaat di ko posé yeneen problème Ouais, Bobsy. Ça va Albastel Quoi Ça va J'ai tous les documents, hein. Il y en a la théorie. Ouais, je tudd. Mamadou Baye la. Mamadou la. waaw. la sa daara nekk xool ma. lan la Liberté 6. waaw. Mamadou Baye yow noo sant. Baye. fii sa kër la dégg waaw. saa yoo soxlaa dara mu nga fi ñëw. mu jëndal la daal jëndal la loo bëgg dégg. waaw kay nuyu na sa mustaas.

Jamais. Mon agent va rester musculé. Mais pour là, il faut que j'investisse. Oui, il faut que j'investisse. Parce que si je n'investis pas là, dans ce pays-là, maintenant, l'argent est devenu comme poupou mousse, Caca des chats. Tu vois même pas l'argent. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais investir dans quoi Dans quoi je vais investir Allô, Waboops. Oui, ça va Fais à c'est parking c'est place du souvenir Ok, ça marche, j'arrive. Marie ngi gaare voilà voilà maintenant si ça c'est fini pour le mariage je dois réfléchir comment faire pour quitter dans les griffes du du bourreau et là il doit investir pour pouvoir anéanti le gourou. Voilà. Donc à peu près. Ouais, ça aussi. Voilà. D'accord, je finis ça, je je deviens riche. Et puis Dakar, Demkanam.

mais ab dafa rechuté Oui, ah bon Maman, ah, mais da nga wara dem Paris dem une semaine nonu Paris xam nga dem non non t'inquiète pas. bu en charge. ne ñu pour ah ok. Ah, mais tiens-moi au courant quoi qu'il en soit avec ta maman tiens-moi au courant d'accord. ok non. non salon moom fu fa mën a ñëw fa instant bi dama jàpp trop mais su ma feexee rek xam naa dinaa la woo. ok. à tout bisous.

salaamaaleykum. maaleykum salaam. Kiné ça va askan naa ça va bien ça va. je te présente Lisa. Lisa ça va. ça va Kiné. moom mooy suñu gérante bu ah, bees d'accord c'est bien. Mhm. Moi, tax ma indi ko fii pour moi, xam fu ñu jëndee produit d'accord d'accord parce que désormais moi, mooy ñëw léegi di. d'accord ça va ça va bien merci. d'accord problème. Mhm. maa ngi ko doon wax ko ci formation bi ngeen di def fii pour coiffeuse yi. Euh, d'accord comme xam ngeen salon de coiffure ngeen yore. te en général produits capillaires yi moo leen gën di intéressé. Mhm. traitement de cheveux aussi bi de da nga am na client yi. xëcc ne yéen a nga def. man ngay waxal. yow keñ. du man dama juum. non mais yow ya jabaru Mamadou Diallo. yow ça fait longtemps. soxna si nga juum du man. du xëcc ne. jabaru Mamadou Diallo. mais nee na la du mom ki tudul Fatou en plus elle n'est pas mariée n'est-ce pas. non je suis pas mariée. ah alors excusez-moi madame. Ah.

pare temps yooyu j'avais ton âge mais léegi bàyyi naa yooyu. da ngaa jëm nag. waaw léegi moom franchement bàyyi naa yooyu. ok man kon dinaa fi ñëw ak coiffeuse yi. nga expliquer leen bu baax wala leen produit yi. bu nekk duñ koy utiliser wax bu nekk duñ koy utiliser ak type de cheveux bu nekk bu ci war a def. voilà d' accord. machine commande bi pare na. waaw d' accord boobu pare na. waaw kon mën nañ ci jot. mën ngeen ko yóbbuwaale déjà. ok d' accord. Hein. Ça va bien. Ça va, nous Ça va. Ça va. Ça va. ça va. Ça va. Ça va, il va très bien. Hein? Oui. Nous fait ben Non, non, ben problème. Ben. Hein? la <laughs> OK. depuis quand depuis quelques minutes. Ah nice ni tay nak dama la indi nouvelle bu neex. Ah oui. gis nga ñooñu ma nekkaloon te ma la waxoon ni suñu dîner bi ça c'était très mal passé gisewaat naa ak ñoom waxtan nañu déggo nañu déposé waat naa dossier bi c'est passé comme une lettre à la poste je vais gagner beaucoup d'argent. félicitations. oui ni ça xamoon ni man temps yele dama am sama benn cousin boo xam ne yaayam dafa feebar ma daal di koy fexe ñu transféré ko yóbbu ko voyager j'ai dépensé énormément d'argent mais énormément d'argent tu vois mais comme j'ai appris que ma femme est enceinte je war préparer arrivé bébé Je war préparer arriver bébé n'est-ce pas Je war préparer soxla ma sa dërëm bu bakkaar yaa ngi dégg li ma lay wax man bu dee xaalis kese wala lu ma tëyee sama bébé mën naa ko ba tëyee sama sa taati set sa xaalis soxla ma ko man li ma bëgg mooy benn affaire que nga nekk fii toog su ma la soxlaa ma gis la bébé bu bakkaar nga jouer sa rôle le rôle d'un père et d'un bon mari loolu rek laa la laaj bi laajuma la leneen soxlaw ma leneen yaa may dégg. Lisa, je voulais qu'on discute un peu à propos de ton boulot. liggéey bii nii ngay def nii. man bugguma ko munu ma nekk am sama jabar war ko mën a yore war ko mën a toppatoo war ko mën a subvenir à ses ngay dem di liggéey ci salon bi kenn di la commander loolu duma ko nangu bugguma liggéey boobu ngay def. <laughs> Boubacar xanaa li ma la wax dégg ko salon bi dem ma fa pour am lu mu dundee déedéet boo ma mënee yor man mun naa la yor si di nga mën a bul faté ne kër gi man mako ko moom j'ai des comptes en banque salon bi may dem pour bañé tok ñak def dara la dé parce que nekk mu jigéen ñoy di tok sen njëkkër yi di dem te xaar seen tu bay ñëw fekk moom may nelaw may dem plage wala shopping tallu ma ko defuma dama dem juste comme ça pour ne pas rester à la maison am lu may occupé wu bu comme salon de coiffure ma bëgg ko sama bopp demain ma am si yu bëri waxuma la benn de yu bëri mën naa ko yaa ngi comprendre alors ba ma fi ñëw di ma indil benn wax mënu nekk. Issa yow comprendre ma de tu es enceinte bugguma ngay dem ci salon ba produit toxique yooyu nga xam ne moom la ñuy utiliser di ci def ay afro ak ay yooyu affaire yooyu noonu nga koy xencu sama bébé di ko xencu non je veux que tu te cases que tu sois calme nga toog dal ku nekk ak li nga bëgg man loolu laa bëgg. mais man Boubacar coiffé ma benn bopp laaluma benn bopp afroawuma tegaluma ken man may gérer coiffeuse yi. Nissa dégguloo li ma la wax am naa sañ-sañ wax la li ma bëgg wala awuma sañ-sañ wax la li ma bëgg li ma bëgg mooy yow gisoo ni afro yooyu ñu koy def sax dañuy sol gant bugguma loolu bugguma nga koy xencu bugguma sama bébé nekk ci environnement boobu dama bugg nga nek dans d'excellentes conditions di noppaliku di lek bu baax di djuk di dem di doxantou di ñew di def say visite prénatale ku nek ak li nga bëgg amna sañ-sañ wax la li nga bëgg arrêté liggéey boobu. façon lii mom je te promets rien du tout Maintenant, parce que dina soo ak Astel ñu xol man du Astel mo yoré sama jabar wala mo jiite sama kër li ma bëgg amna pour wax la ko té wax na la ko bu féké ni tu peux le faire.

invité nous Fanny, Fanny. Fanny. ah. Fanny d'accord. yii. Mm. petit sourire Tami. Quelqu'un a essayé d'enquêter sur moi. Je veux savoir c'est qui. On se retrouve tous dans un e café à